مصطفى إذ جاء يمتار إذ جاء يلا fay leen yéen ñépp ñi ci gàmm gi ñu jublu nag incha allah Idrissa comme yem nga ci léegi laa ci doon wax ak suñu kilifa ñun ñépp Cerno Mouhamadul Bachir Muntaga Daaxal Cheikh Omar bam lay tudd nañ daan def rek lañuy def yar bi ak teggin bi daal laa ci gën a bëgg maa ngi koy ñaan ñépp bu weñ di naaw sax nañ ko dégg ndax tekk ak celleeral looloo mos a am feddali la rek fa bi ay yàllaay rabbikumaa tukazzibaan ñaata yoon la ñëw ci benn saar donte yépp bokk ñu piri waaye yàlla li muy wax sax da koy baamu pour fàttali la fa dhakkir fa inna zikra tanfaul muminina loolu rek lañ ci jublu waaye xam nañ ne looy def ñaar fukki at ak ñett nam daan demee rek lay demee yi ma daan wax rek laay waxaat na sañse yi rafet xuzu zinatakum inda kulli masjidin jigéen ñi jaaxaluñ ma ndax ñoom dañoo bëgg àddina bi yóbbu àddina góor ñiy bañ bañ lu àddina te fekk moom rek lañ bëgg waaw jigéen ñi moom jaaxaluñ ma ñoom dañuy defar ba mu baax tabarkal la ñoom loolu la leen yàlla bindee waaye góor ñi maa ngi leen di ñaan jiin kenn du ko yóbbu gàmmu xanaa nga teg ci sax benn bloc bu weex ay sol sa pantalon jiin di dem ngàmm jiin daal yëngu leen la gën a baax waaw sëñ baab mu ne sëñ Babacar Si nee na Seydul Xaaju Malik jox na ko lijaasa ci tariqa bi jox na ko lijaasa ci sañse ah xuzu zinatakum moo tax inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu lu tax innahu la yuhibbul musrifin fa tabaarakallahu kon sañse yu rafet parfon yu neex waaxu ndànk ñëw toog réserver luñ kenn place ku ñëw daal foo jekku toogal fu la neex toogal leer na amul it carte pour dugg comme nii amut mu ne lii ma wax imam Moussa nee na mu ne bu ñu neexee sax ne sunna la ganek mu ne ganek àdduna yonent bi. wala ba leer ga wàcce. wala ba leer ga wàcce. an attiru baxiru. an attiru baxiru. xayrul buxuuri. xayrul buxuuri. wa afrisu sajaadaati. wa afrisu sajaadaati. takriman alal xusami la. takriman alal xusami la Maodo wax. cuuraay yi gën a neex. cuuraay yi gën a neex. taal leen ko gëtt yi gën a neex gëtt yu gën a neex génnee leen ko tapp yi gën a rafet tapp yi gën a rafet lal leen ko lal leen ko ndax kan ki gën ci mbindeef yi moom ngeen di teral mu ne sañse nag te fas yéene ko teral Maodo woy lool te Maodo suñ sëriñ Cheikh Cheikh Al Hadj Omar di sëriñam Cheikh moom Al Ghali Cheikh na Tijaani Rasulullahi kon nag imaam Moussa nee na ci biir loolu mu ngi ñaan sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si. sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si. almaktum radiyallahu taala anhu. nee na yonent bi fuñ ko tàntal. nee na yonent bi fuñ ko tàntal. buñ ko yëgee. buñ ko yëgee. ak buñ ko yëgul. jaar na fa jaar na mu ne du fa yàgg nag mu ne du fa yàgg nag. kon nañ teew lu mu ne kon nañ teewlu présence. guddi googu guddi googu ci tant bi. incha allah programme ba nii lay tàmm nii lay tëddee minuit pile lay tàmbali comme d'habitude. minuit zéro heure zéro heure lay tàmbali. imaam Moussa mooy njëkk a ubbi dalal gan yi nuyu leen jox imaam maam Ngour topp insha allahu taala mu dugg ci xilaas ci fukkeelu buntu ak ñaata la ah fukkeelu buntu ak ñaar moom lay jël ren mu ne lu mu tombeel imaam Abdoulaye Mbaye RDV ah, kañ waxal Mm-hmm. wax ko alaaji abdullah qad xalat min chahri mawlidihi mm. min nubuwati amal amal xubbi mm-hmm. waaye nag waxiila fi rajabin moo taxoon mu yàkkamtee ñëw mm-hmm. ndax rajab moo si waxiila fi rajabin dégg nga bizalika eh, al amalu al aana salaamu ala al muxtaari til qidami daal di nag ne li ci topp asra bihi llahu tasrifan li mignatihi hmm. ataara a maaraa min ay yususun eh, muy bunt bu yéeme allahu akbar bu hmm. boo xam ne la ca xew kero la ma sa xew te dootu amaat ba ilaa allahu te bunta fukk ak ñaar xam nga mooy mooy maarifa hmm, waaw ki waaw waaw masrabahum allah mooy mooy maal kon kon kon ron gàmmu ren gi skey mooy gàmmu ko xam yàlla hmm. tabaarakallah Cheikh Mamadou Bachir yàlla na fi yàgg na amiin yaa rabbal aalamiin ah kooku moom ak ah. jullit yëpp kañ sawa yaa ngi ñëw léegi nag su ko defee bu imaam maam ngóor toog bunt bi shérif maamin jël ubbil tafsir abdourahman gay ñoom ñaar ñooy dem ba deux heures trente du matin Tiwaawoon dem naa fa altine gisante nag Seydi Aboubacar si bu Serigne Cheikh bu bu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz si Dabba maa ngi fa jógee quatre heures matin te maa ngi fa jëm maa ngi fa dem treize heures astafurlah 15 heures 30 laa fa dem maa ngi fa jógee 4 heures du matin fa tabaarakallaahu kon waxtaan naa ak moom yama daan waxtaan ak moom comme d'habitude niñ ko daan defee su tafsir pare ak Chérif Maamin tombeel Serigne Babacar Abdoul Aziz yegsi woykat yi ubbil ko moom mu waxtaanee la bëgg a waxtaanee nee naa ko kenn tënku ko moom ci tem wala ci lu muy wax na seet lu mu bëgg rek mu waxtaan ci su waxtaanee ba quatre heures quatre heures et demie ci la Cerno Bachiru Muntaga di déparé Wakaam pour ñëw moo ma wax ne dafa bëgg di dégg waxu Sëriñ Babacar Si Abdul Aziz ndax daf koy fàttali baayam Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz moo tax Serigne mbay toujours ma ko di ko wax sëñ Babacar toujours ma di ko wax ne ko bu Thierno Bachir ñëw rek nga joxe micro ndax orma moom moo ne dafa bëgg dégg sa kàddu moo tax sëñ Babacar di wax ci kanamu Thierno Bachir waaye nanguwu ko woon ndax nee na Thierno Bachir du teew mukk muy yëkkati kàddu waaye Thierno nag moo ko sàkku ci moom. ndax bëgg dégg kàddoom ndax jàppee ko kàdduk Cheikhul Hadj Abdoul Aziz ah su Thierno Bachir ñëwee nag Muntaga daaxa Cheikh Al Hadj Omar al droit d'auteur dinaa ko jox droit d'auteur démb dafa am dafa am benn taaleen bu jigéen bu ma woo waaw na ñëpp wax radiyallahu taala mu ne na ñëpp wax radiyallahu taala anhu dama ko woo muy fàttaal soxnaay Mansour mi le ma ne ko fàttaal taal Cheikh Al Hadj Omar Fouti mu ne boobu am na borom ma ne ko dinaa joxe droit d'auteur <laughs> léegi nag borom a ngi nii toog <laughs> loolu yëpp day wone cofeelam ak màggal sëñ bi nit loo am danga koy fonk boo ko fonk fonkul ñàkk li sëriñ Babacar Sy doon wax ne am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam koo ko gën waaw fa tabaarakallaahu loolu rek la waaye bu koy def sama xol day sedd ah, ndax damay xam ne kii <laughs> te expression la boo xam ne moo ko fi njëkk a génnee nag ku ko fi waxati rek na la jox droit d'auteur tàmbalee ci man waaw ku ko waxati rek na koo jox droit d'auteur tàmbalee ci man ndax Sénégal na copier rek lañ mën Imam Moussa mii moo ma ko daan wax mu ne sénégalais du créer mu copier rek mu ne booy jaay caaf fii au lieu mu jaay mango kii jaay leneen dañuy ñëw ñoom ñëpp di jaay caaf bu yàggee mbedd mi yëpp di jaaykat yi caaf mu ne ci njaayum xaal mi la ko seetloo boo jaayee xaal mu dox rek koñ bi yëpp xaal lay doon waaw tabaarakallaahu jërëjëf Guèye Ndioro su ko defee dañuy jël kàddu gi ah bu Cerno Bachiru ñëwee nag mooy kilifa lépp nu doxalee rek noona lañuy topp ci kawam bu noppee ñaan wala kum sant ne ko ñaanal koo ko ñaan bi ñu yewee ko ba déwén ah, boo jaaree nii du baax may leen ko mu jàll skey laa ilaaha illallah Idrissa yaa gis de ah Cerno Muntaga Daha Cerno Saidu Haji Abdul Aziz skey eh, man de fu koy def ca sant baa ma ñëkk a jaaxal. ana ana ana <laughs> laa maktum rek lay xool maa la ko wax xool ko regard bi regard yu doy waar la yow mun ah! ngaa dina tukki na Cerno Bachir mun taga daa Cheikh Oumar imam yaa gisal sa bopp man de lii yëguma ko njaga de yi fi dof rek lay def. ah. man de fu waaw. Ah, ca ca gàmm njëkk ya ba ma ko joxee kaamilu alaaji ahmad dem bi ah waaw waaw bam bam toogee di déglu waaw xasari wallaay Eh, eh, eh, allahu akbar waaw kii moom nit la Idriss Idrissa ah Alaaji Ahmad dem Sokone Cerno Mamad Saydu Ba ah jóg leen taxaw ñu xool mbégte alaaji sëñ Babacar xoolal ni mu sarab ah kii nag allahu akbar yii waaw alaaji moo ñu jégal ñetti fan yi la ñetti fan yi la bu mu toggee muy te at bi mu ko jëkk defaree ma yëkkati teraanga di ko jox daf ma ne bu mu amati mukk man li ma servir xamoo ma waaye man xam naa ko moo tax may def lii ci la ma waxee ne moom technicien la yii lay defar ak panneau publicitaire yi mooy yooyu di turne ci biir panneau bi yàlla ci yooyu la ko may subaarakallaahu ah ñun ñëpp a ko gisandoor kon nag bu imaam Moussa daanalee kàddu ñu jox ko bu pare rek ñu ñaan